Je me présente, je suis Madame Gom Aminata Touré, chef de division euh, du service à la communauté, la direction de la coopération, de l'insertion du service et du service à la communauté de l'UGB. Nous avons organisé cette journée de lancement officiel des vacances citoyennes euh, pour sensibiliser euh, les étudiants sur les enjeux de la citoyenneté, du civisme, de l'engagement communautaire et aussi de partager des expériences euh, des différents acteurs de l'université sur ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine du volontariat, de l'engagement communautaire. L'importance et les enjeux de, ces vacances citoyennes, c'est vraiment au-delà de sensibiliser la communauté, euh, universitaires, c'est-à-dire euh, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif, de les encourager, de les motiver vraiment durant les vacances citoyennes à mettre euh, en œuvre des activités où qu'ils peuvent être chez eux, dans leur village, dans leur quartier, dans leur région, des activités qui peuvent être de simples activités qui peuvent être des activités d'envergure, mais de manière à impacter euh, leur communauté, donc durant ces vacances-là. Et ces enjeux aussi, c'est au-delà d'impacter leur communauté, de s'impacter eux-mêmes, de développer leur leadership, de développer leur, euh, euh, sur le plan personnel aussi, de se développer. Je suis professeur Alekan, enseignant-chercheur à l'Université berger de Saint-Louis n'est que le directeur de la coopération de l'insertion et du service à la communauté euh, tey samedi 10 août 2024 nous avons fait le lancement officiel de la vacances citoyennes euh, vacances citoyennes boobu nag porté euh, slogan bi mes vacances pour ma communauté Madame, sont mes vacances euh, dama koy def ngir sama communauté lu tax ñu euh, def euh, lancement boobu mooy université Gaston Berger am na lu toll ci fukki junne ak juróom juróom-ñett ci ay étudiants yoo xamante ne su vacances jotee ñii ñi ngi def ay stage mais ñii tamit ñi ngi seen quartier yi wala seen village yi mais defuñu ay activités alors on s'est dit que c'est c'est loolu import li important mooy comme étudiants yooyu dafa nekk na ñi nga xamante ne ils ont accumulé beaucoup d'expérience maanaam xam-xam bu bëri lañ am am dynamisme am force am kattan xam-xam boobu ñu am ak kattan boobu ñu am ak vraiment euh, laabir bobu ñu am ñu def ko au service de leur population manam lu ñuy def ba nga xamantene ne yan activité lañ mën a def ngir impacter sen population sen collectivité donc loolu la ñuy def ci vacances yi donc ñan ñoko ko euh, seq tey la direction de la coopération les stations et les services à la communauté mais aussi euh, organisation yi nek université yëpp mu nek ay collectivité mu nek ay association mu nek ay club mu nek ay daïra mu nek ñi nga xamantene ñi ngi nekk ci église bi wala ñi nga nekk ci nga xamantene ci ci mosquée université yi lañ nekk ñoom ñëpp la ñu woo ngir ñu sottante xalaat ku nek wax li nga def ci euh, service à la communauté ñu partagé ko euh, ñu doolante créé benn plateforme boo xamante ne ñun ñëpp dañ ci nekk euh, pour si vacances yi ku nekk si ñun soo demee fa nga jógee nga delloo njukkal lox ñu delloo njukkal mooy tey lépp lu ñu am communauté moo ñu ko defal mooy sunu jàng sunu nekkin suñu sécurité maanaam même fonctionnaire yi nga xamante ne ci université yi ñoo leen ñu fay ak li ñu tabax université ak lépp lu ñu am société moo ñu ko defal kon suñu dee ba tey yàlla may ñu xam-xam ak kattan ak doole loolu war nañ koo delloo ci communauté yi moo tax delloo njukkal anglais diko di le giving back donc lol motax ñu organiser ces activités là nakul activité yo xamante ne dañ ko dañ ko tëj dañ ko ubbi kep ko xamante bëgg def activité ci lu melni euh, ci euh, santé Euh, pour seeti ay malades wala pour sensibiliser si maladies yi nga xamante cardiovasculaire yi nga xam ne dañuy euh, médecine wala ay dons de nga xam ne environnement reboisement daf leen intéressé ñu def nga xamante def nañ fi cinéma ñu dem def cinéma seen nga xam ne def nañ sport ñu dem jàppale ci sport ñu def géographie ñu def sociologie ku nekk ci li nga xamante ne am nga ci xam-xam nga dem service sa communauté tey am na xale yoo xamante ne ñu ngi ci hôpitaux yi def nañ fa ñaari fan une semaine benn at ñaari at te kenn seetiwu leen muy ay xale muy ay mag muy ay malade donc juste euh, booloo nekk juróomi nit juróom-benn nit ci benn quartier dem seeti ay malade yëkkati ay fleur jox leen ko wala yëkkati ay cadeau jox leen ko nekk na lu am solo loo xam ne daf leen soulager donc loolu action bu a wax la bokk na ci seetal quartier yi bos bokk na ci jàppale nit ñi ci nga xam ñëw mel ne ay ñu jàppale nit ñi ci tout ce qui est euh, euh, assainissement lépp loo xamante ay alerte la météo tey alerte am xam ne xamuñu euh, taw fu mu ñëwee mu bett leen dal seen kaw ñu góorgóorlu ci alerte beneen mbir mu ñu mën a def mooy ci jàmm ndax gis nañu vacances yi macha allah xale yi dañu nekk ci stade yi maanaam seen seen bëgg-bëgg football ak sport day dem ba jéggi doy waar am ay crise yoo xamante ne ay euh, ay violence yu am lu tax lu tax xale yi nga xam ne jóge na université du ñu def ay association wala ay marche ngir woote jàmm ci quartier yi ndax sport ak jàmm ñoo ànd donc loolu quelque euh, exemples yu ñu joxe la mais mën na gën a yaatu euh, ku nekk daal ci ñun ci li mu am ci xam-xam ak ci xolam mën na ko def ci communauté yooyu mais li ci gën a am solo mooy ki nga xamante ne ak association ak volontaires yi nga xamante ni ñëpp def nañ service à la communauté yëg nañ ne bi ñu ko joxee maanaam dañoo am mbégte bu nekk ci ñoom waaye loolu nekk loolu loolu rek waaye ki nga xam ne de service à communauté moom dafay développé wu day mën a ay nit day mën a euh, euh, mouvoir wu ci dans une société donc loolu dafa nekk lu am solo loo xamante ne day service ki nga xam ne étudiant la parce que li ñuy jàngalee yamul juste ci ay li nga xamante ne moo lañ di ci salle de classe yi mais am na xam-xam boo xamante ne ak relation boo xamante ne soo ko amul ak société soo demee ci ci entreprise soo demee ci ay projet doo mën a dem